L'engagement auprès de son Excellence le président Macky Sall n'a jamais failli l'engagement des femmes a été toujours remarquable maa ngi nuyu ñëpp di remercier ñëpp parce que discours la préparé woon waaye dafa guddi mais li wax na son Excellence le président Macky Sall yaakaar naa li mu liggéey Sénégal waxuma jigéen ñi waaye góor ñi ak mag ñi ak ndaw ñi ku ci gis sa ci biir mais particulièrement jigéen ñi seen taxawaay seen liggéey wane na ko démb parce que démb dafa sargal au Sénégal en promulguant la loi sur la sur la criminalisation du viol et de la pédophilie il a encore réaffirmé son engagement à soutenir les femmes du Sénégal kon ñu koy remercier encore une fois di wax né su APR woté ñu xamné parti woté na bi ñu jugé ñu xamné ne dañu tok parce que ñoo fi né té ñoo man mobilisation bi parce que on est toujours engagé aux côtés de son excellence le président Macky Sall né naa ko c'est sa taxaway kenn natable ko ci rewmi fi nga fekkoon réew mi ak fi ko yóbbu tey jii domaine par domaine compétence par compétence ñu wax liñ ki def de 2012 à nos jours Le tax ñun en tant que sénégalais et sénégalaises on sera toujours engagé aux côtés de son excellence président Macky Sall pour sa vision pour sa belle vision sa belle vision du Sénégal et sa contribution à la prise en charge des problèmes du problème des Sénégalais Comme président nous, lay nuyu di wax ne tey jigéen ñi dañu ñëw fii ci département de Rufisque lancer la tournée nationale du mouvement des femmes ànd ak ak jigéen ñëpp nag di beral les honorables députés qui sont ici présents